tànku tey ci biir Touba tànku jàmm la tànku nemmeeku la tànku massaw la puisque comme ni ngeen ko xamee ville de Dakar dafa am benn daayira daayira murit boo xam ne day liggéeyal sëñ Touba ci biir Ndakaaru ak fii Touba ñoom ñoo bindoon lettre monsieur le maire Barthélémy Diaz ne dañ bëggoon pour mu jàppale waa Touba ci mbënd mi fi am loolu moo waral sunu ñëw tey ñu ñëw nag mu nekk ak équipe technique bi pour prospecter pour xool puisque tey ñi ngi ñi ngi indi ñaari moto pompe yoo xam ni benn bu nekk day def 5000 mètres heure ñu ànd ak la responsable technique pour moom mu wër mu évaluer du évaluer ñu xool s'il faut augmenter les moins maire nee na que dëkku papaam amul dara lum ci hésité de telle sorte que li mu ci war a taxawaay yëpp dana ko taxaw loolu sëñ bi moo doon sunu tànk tey di gërëm di sant ci ni ngeen ñu recevoir du leen waxte maire de Dakar ak daayira bi ils sont disponibles disposés à accompagner vraiment accompagner population Touba ci xat-xat yi ci ci fu ko yaakaare yëpp moo tax euh, euh, monsieur Junior ak équipe am danañ évaluer comme ça ñu xool moyen ñu soxla rek te mu nekk ci biir ville de Dakar maire nee na il est prêt à mettre ses moyens à la disposition du daayira et que daayira ba mettre qu'à la disposition de la population de a capacité bi 500 mètres cubes heure la. ñaari moto pompe moto pompe yi mënul tàkk tant que amuloo benn benn hauteur un mètre d'eau puisque c'est des moto pompes très puissantes moo tax ñu indi ko mais euh, responsable technique bi mi ngi fi dana évaluer dana àndax ñi fi nekk Touba comme ça ñu xool li nga xam ne dañ koy soxla la ville de Dakar ak daayira daayira bi ils sont prêts à accompagner. sëriñ bi sant na bu baax a baax daayira ville de Dakar sëriñ bi sant na bu baax itam doomam Barthélemy Dias ndax xam na ne daayira bi bu ñu mënee def li itam xalaat la bu ñu am ak seen yéene waaye bu dul woon Barthélemy duñ du yombe nii ñu defe ko nii kon te jëf ji nag ku gis pompe yi ak ngeen boole ci wax ne équipe bi ñu ngi fi yéene def seen ay carburant wax ne itam bu ñu xoolee terrain bi li fi nekk laneen lu mu laaj euh, ville de Dakar taxaw na pour dem jëli ko indi ko ngir jàppale tubaa loolu yaakaar naa ne lu ama am solo la te bu ñu amoon euh, keneen ku mel na yéen rek yaakaar naa ne jafe-jafe yi nga xam ne Touba am na ko dana saafara wu kon daal na ngeen xam ne ci turu sëriñ bi mu jaar ko ci monsieur le maire Abdou Lahad Ka ci turu population Touba yëpp sant nañ bu baax ngeen santal ñu ñi nga xam ne ñoo leen yebal santal ñu monsieur le maire bu baax ndax xam ne jëfal ngeen jëfal ngeen ku mat jëfal ndax sëriñ Touba ngeen jëfal sëriñ Touba nag moom am na fay dëkkam bii ñoroon na ko lool ñi fi dëkk ñor nañ ko lool te nekk nañ ci ay xat ngeen ñëw jàpp si jàppi jàppin woo xam ne nag jàppin wu rëy la bu rafet la woo xam ne nii ne bu dal xel la tey jii bi ñu la gisee rek suñu xel dal na yaakaar naa bu ñu gisee suñu ginnaaw am na ñu bari ñoo xam ne dañoo séen rek ñëw taxaw parce que xam nañ ne jëf ji dana am solo ci dëkk bi soxla woon nañ ko lool te indi ngeen ko tey kon nag sant sant nañ bu baax a baax